di waxtaan ci li nga xam ne moo lëmbe àddina bi jaxase àddina bi fitnaal nit ñi sonal doomu aadama yi doomu aadama yi dañuy dund ak jinne yi di dund ak rab yi di dund ak dëmm yi di dund ak seytaane yi te bàyyiwuñ leen xel bari na lu nit di jiiñ doomu aadama fekk jinne dugg ci nit ki def loo ko ko tax moom tayu ko am na ñoo xam ne danañ toog nga wax ne eh, rab wala seytaane wala dëmm wala jinne ñu weddi ko xam nga képp koo gis muy weddi dëmm wala muy seytaane wala muy weddi rab xamal ne moom ci boppam waxtu woowu raba ko dugg di weddee ci moom ta xamul ne raba ko dugg di weddee ci moom masala lu mel ni nit nga xam ne dafa am société yor ko di ci liggéey yor ay employé am yàlla dogal ci njëlbeen gi nga gis ñu déggoo ñu dem tuuti nga gis mbañeel commencé am nga xam ne léegi sa nit ki sax sa secretaire wala sax sa employé bu ñëwee ci yow di wax ak yow doo bëgg sax mu wax ji jeex da ngay yàkkamti doyal ci moom loolu boo ko gisee rek xamal ne jinne dugg na ci seen diggante yéen ñaar di yàq seen diggante des fois dikk dina ne yor société société bi di dox di dox dox boo xam ne ñëpp dañuy gis ne société bi mu ngi ci do mu ngi ci ci ci ci bonne voie mu ngi dox nit ñaa ngi liggéey résultat baa ngi am ñu jékki-jékkam yàgg rek affaire yëpp teg na teg taxaw jinne mën na ko def rab mën na ko def dëmm mën na ko def nit ku bon mën na ko def cat mën na ko def jinne nag dafa nekk loo xam ne dafa doy waar yàqam dafa gaaw yàqam dafa doy waar da ngay gis sax ñaari nit ñoo xam ne dañuy ànd nekk jëkkër ak jabar bëggante bëggante bu jiggi dayoo nga gis ko jigéen ki am rab wala ko góor ki am rab wala jinne sax ci jëmmi boppam ñëw dugg seen diggante des fois mu ñëw sax ba dikk nit ki sax demee ba bëgg a sëkk ak soxnaam nga gis affaire ba daal di wàcc mën na nekk koo xam ne tax mën na dem ba bu soxna si ñëwee bu ñu génn bu génnee nga gis ñu déggante ci jàmm téléphone bi day neex waaye su fekkee mu ñëw ci kër gi rek seytaane si daal di taxaw commencé di lu tax nga nangu li waroo nangu li day nekk sa xel mi di ci wax am na ñoo xam ne sax àgg nañ ci boo xam ne sax seen seytaane yi dañuy wax ak ñoom ci seen xel ba ba ñu koy jégg nga gis koo xam ne day am soxnaam bëgg ko bëgg ko jégg dayo mais pour mu ëkkati loxoom dugal ci poosam jox ko soxna si ak dee la yamale loolu yëpp jinne ñoo ko jinne moo ko indi moom ku góor ki da koy naqari ku jigéen ki mu naqari ko te ku góor ki loolu rek lay bëgg dimbala soxnaam wala jox ko alalam loolu jinne moo koy def yooyu nag dafa am ay secret yoo xam ne moo koy dindi vite fait am na loo xam ne moom laa koy jox bu koy def loolu dañ seen diggante parce que saytaane bi nekk seen diggante ci wàllu énergie lay aju ko nit ki laalee ci saasi rek da gis saytaane bi nekk seen diggante yow day daal di dañ souvent nga gis ku jigéen ki ñëw na la baal maaq wala ku góor ki ñëw na la baal maaq wala nga xam ne léegi yàq-yàq boobu nekkoon seen diggante ñaar day daal dañ ci saasi loolu dafa am loolu jinne daf koy def liggéey daf koy def cat daf koy def dëmm daf koy def dëmm nag moo gën a bon dëmm nag moom am na ñoo xam ne gëmuñu ko waaye dëmm dafa exister donc nit ki nag su fekkee ne yàlla dogal na làmmeñ jàpp ko am na loo xam ne moom lañ koy dimbalee mu dañ mooy li ñuy wax cat cat dafa am ci nit cat dafay yàqal doomu aadama am na ñoo xam ne seen sëy yi cat ko yàq am na ñoo xam ne seen mbooloo yi ñu amoon cata ko tas am na ñoo xam ne seen tur yi ñu amoon cata koy fay am na ñoo xam ne seen alal ji ñu amoon cata ko yóbbu am na sangat boo xam ne maa ngi koy def të gémmiñ moom la ko mag ñi tuddee woon sax të gémmiñ googu nag mooy képp koo xam ne sangoo nga ko miñ du la mën a yàqal li des ci sa dund am na boobu am na sangat boo xam ne boo ko sangoowee cat bu mu fekk ci sa yaram da koy dindi képp koo gis muy weddi dëmm wala muy weddi saytaane wala muy weddi rab raba ko dugg te xamul ne raba ko dugg di weddee ci moom parce que rab am nañ possibilité dugg la yàq la yàqee ci yow génn daal di dem fois nga gis koo xam ne da ngay wax nga gis ñu dugg ci wàllu internet bi jël seeni commentaire commentaire weddi la fekk lañ lay weddi ñoom seen jëm bopp ñoo la gën a gëm waaye ñu ngi koy weddi parce que rab mooy leen di def loo loolu nga gis nit koo xam ne day taxaw naan la bul dem ci lii bul dem ci fekk moom ci jëmi boppam seytaane dugg na ko rab dugg na ko ba di ko weddi la weddi la wala mu yàq sa xel moo tax nit koo xam ne gis nga ci sa bopp xam nga ne li nga gis ci sa bopp amutoon ci yow xam nga ne mënuloo koo dindi ci yow te xam nga ne neexu la xamal la liggéey la mbaa cat la mbaa dëmm la mbaa ngelawu seytaane la boo gisee ñu naan sarax day fanq musiba dafa am ay sarax yoo xam ne soo ko saraxee rek yàlla daf lay may nga am énergie positive sa yàlla daf lay may renforcer sa énergie ba nga gën a mën a am kattan ci wàllu mën a dékku yenn yi su fekkee ne nag da nga nekk xam ne da nga négli sa sarax da ngay gis sa wàllu énergie positive bi day wàcc sa énergie négative day yéeg nga xam ne léegi fu la nit catoo mu dugg fu la nit mu liggéeyee mu jàpp fu la nit defee lu bon mu yegg si gis nga lay xamal ne énergie am na mooy nit ki mën nga jàkkaarleeg moom rek ne diw sàngam sa nàngama rafet rek nga gis ca ngonte rek mu commencé di loola di yàqu ci moom moo tax boo ko sangooyee da ngay am protection boo xam ne daf lay wër képp ku la wax lu bon day am defence lu koy défense ba nga xam ne du la mën a yàqal kon nag man maa ngi wax ne lii nga xam ne mu ngi sonal àddina bi muy jinne yi ak rab yi ak seytaane yi ak dëmm yi loolu il faut doomu aadama bàyyi ci xel du protéger ci boppam protéger ci ay njabootam protéger li nga xam ne moom mooy ay jegeñaalam